alaaji xaas mbay mbàkke bool ñun sàcc yi dañoo dëkk ak ñoom di leen rus nag kii lu bëri te ñoom rusuñu seen bopp muy installation courant dañuy rocci fii boo sampee niis ñu jël ko ba tey rek dem naa pour gis directeur Sénélec sax ne ko léegi nañ ñuy may pour niis yi léegi ñu koy dugal ci biir kër yi parce que loo def ci koñ bi ñu sàcc ko léegi nag xale yëpp bi ñu réunion li ñu wax mooy bu nu la jàppee parce bu buñ leen dàqee dañuy daw dugg ci armeel yi bala ngay kii ñu tëwaat miir génn te sàcc yi ci koñ bi lañ dëkk léegi nag ñu jël matuwaay yu wér kuñ ci jàpp danañ la dóor ba rey la moom mooy suñ mooy suñ xalaat bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy wax buñ paree danañ jël suñ mémorandum dem jébbal ko préfet ne ko nag ñun lii moom jëlee nañ suñ matukaay bopp parce que Mbàkke sécurité bi doyul chaque jour moo xam ne fii dafa war a am yeneen poste police parce que li fi nekk bëri dëkk bi rëy na tey suñ ginnaaw a ngi nii sancaan yi dëkk bi dafa màgg léegi Mbàkke li manqué dafa bëri amuñu camp sapeur pompier amuñu gendarmerie amuñu police bu baax vraiment loolu ñu ngi koy dénoncé bu baax a baax a baax kon nag ci li xam ne daal moom lañu ñuy wax ministre de l'intérieur na ci jël ay responsabilités xam ne ñun fii ñu dëkk ngéwal ba njóobeen sàcc bu ñu fi jàppati duñu ci am lu ñuy rus danañ la dóor ba rey la foofu lañ taxawee. luñ ci góobee non luñ ci góobee dara parce que ñun xamante nañ xamante nañ suñu biir maslaa lañ ci def akuk mbokk léegi nag comme ñoom ñu ngi gën a xaabaabal léegi nañ koy tëgg ak ñoom lu buñ ñu joxoon ñu luqi leen. ay sàcc yoo xam dañ ñoo sonal te ñu dëkk ak ñoom daanaka am na ñun juddulu am na ñu fi wàll siyaan te nag comme que dañoo am bay xar di ami nag di ami lépp di amee ginaar di ami ay ay xët yi te ñoom xeebuñu dara daanaka xar yi moom jeex na léegi xët yi ci lañ jub si léegi nag moo tax ñun ñëpp ñu dajaloon na léegi nag nañ jël suñuy matuwaay fii ci koñ bi li commencé ngéewal ba njóobeen bépp sàcc boo xam ne jàppati nañ fa jàppati nañ fa jël nañ suñu décision boo xam ne nii danañ la dóor bare la boobu décision la lañ jël moom. boo xam nii moom bëgg nañ ku ko dégg xam ne diggante ngéewal ndóoyeen mbéngeen njóobeen jël leen seen i matuwaay sàcc bu fi duggati danañ la jàpp bu buñ la dóoree danañ la rey kilifa yi ñu ngi defante lu war police ndax bërki démb ah, bu ma juumul dimanche bi passé am na sama benn xarit dafa yónni doomam ñu këf appareil bi ba bi mu yuuxoo benn euh, jakartaam ñaari jakartaam maa ni quoi kenn ki bi mu daanoo ban ko jàppee bi ñu koy dóor fii ci Njóobeen sama benn jarbaat bi mu wóoyee police police xam lu leen wax dañ leen jël leen oto ngeen teg ko ci ñëw te boobu ñu ngi koy dóor ba muy bëgg a dee ma xam ne daanaka bi ñu ñëw fekk ren waa ji mënut a mënut a yëngut. day am agression sama jarbaat bii ma lox nii nga xam ne moo woote toog na bund këram di manipuler appareil am jakarta maan yi daw romb ko bëgg a fil appareil mu dóor la ñu daw bund këram fii ci Ndiobène Mbacke Baol. ndax kuy bëgg a dee wéqu te ñu ngi bëgg dee te ay mag lan sunuy mag wéy nañ ñun ñoo fi nekk. doon kilifay koñ bi daanaka génération bii nga gis ni ñooy kilifa koñ bi ndax mag ñi seen wàllu wéy na kon nag faaw jël suñu parce que kenn mënatu fi am xar kenn mënu di fi am ginaar kenn mënu di fi am dara. prison yi sax léegi dañuy jël saaku sàcc lépp dugal ko ci saaku dem jëlaat ñenn sax dañ ko yóbbaale. kon loolu buñ ci jëlul suñu matuwaay kon daanaka dana dem ba dootuñu mën a yar yor yar ginaar. waaw léegi daal lu wax ji nag mooy loolu moom daal matuwaay yi ñu jël mooy bépp sàcc boo xam ne jàpp na la ci diggante ndóoyeen ba ba njóobeen bu la dóoree dañ la rey